daayiratul fadli buñ fornome war ngay sant yàlla ñun la jigil kësalaadam si di baram aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim allahuma salli ala seydina muhammadin ilfati lima uxlika walxaati bi ma sabaqa nasiri lxaqi bilxaqi walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaari lazim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant suñ sëriñ Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane di gërëm xalifam ba Mawlana Cheikh Lislaam El Hadj Ibrahima Niass ñu ngi nuyu di ziar suñ sëriñ Seydou Moulay Abass Man Dieng di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla defal ko jàmm ci zahir ak ci baatin barki Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ñu ngi ndokkeel di ziar al Ousmaniyu ab fépp fi nga xam ne ñu ngi ñuy bàyyi xel ci ay bërëb yu fasantiku ci waxtu bi ci waajtaayu katmiya di ndokkeel képp ki nga xam ne jullit nga képp ki nga xam ne tijaan nga képp ki nga xam ne cofeel ab Mawlana yi mu ngi sa xol ndax loolu mooy li xam ne lii jëriñ loolu mooy li xam ne eh, lii yokk nit ci mboolem fànn yi mbëggeelu Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane yi mbir la mi nga xam ne xataa sax ku dul julit bu ko xamoon ala kulli xaalin dina si jàpp ba dëgër waaw yàgg naa di nettali lenn ci li nga xam ne mbokk taalibe yi nañ ko Seydi Alioune Tamassini ñu ne ko yow mi nga xam ne yow la Seydi Tidiane yi dénk euh, tarixa bi ci ginnaawam yow mi xam ne yow la Seydi Tidiane yi dénk njabootam ñu ngi lay laaj nga dénk ñu laaj nga dénk ci noonu mu ne dinaa leen dénk bi ko waxee nag mbokk taalibe yëpp euh, kenn ku nekk dajale say këyit mm, jël sa bic ah, toog di xaar di wax ne comme que Seydi Alioune Tamassiny mooy xalifa Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane ci ginnaawam ala kulli xaalin ak yàgg bi mu yàgg ak moom ak xam bi mu xam sëriñ bi li jot dund ala bu ñu naree dénk dinañu dénk lu bëri kon ñun ñëpp ah, nañu toog ñu bàyyi ci xel waaye bi Mawlana Seydi Alioune Tamassiny ñëwee mu ne leen maa ngi leen di dénk lawazim mooy laazim suba ak ngoon wasif ak xadratul juma waaw loolu mbir la mi nga xam ne yàgg nañ ko di fàttali mbokk taalibe te moo Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass boo xoolee ci leetaram yi bari na fi nga xam ne mu ngi koy euh, fàttali mbokk taalibe waaye tamit di leen ci gina a soñu ci bunt boobu noonu mu ne ginnaaw bi ngeen saxee ci lawaazim mi mooy li nga xam ne wax nañ la euh, loolu moo lay def tijaan mu ne nag na ngeen góorlu ci mbëggeel ci Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mu ne ginnaaw bi nga saxee ci li ma la njëkk a wax di laazim suba ak ngoon wadifa ak xadratul juma nga dolli ci mbëggeelu Mawlana Cheikh Ahmed bu dëggu mbëggeel ju dëggu nag ala xaalin bu la neexee jaratul sax nga yokkaat ci beneen per mu ne mbëggeel jooju noonu dina la yéegal ci bëgg yonente Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa dina la yéegal ci bëgg yàlla dina la yéegal ci mbooleem marati bi kon nga xam ne eh, lii nekkut mbir mi nga xam ne ala kulli xaalin mbir mu tuuti bëgg Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane ci ki xam ala kulli xaalin xam na ne mbooleem secret yi foofu lañuy wëre mbooleem mbir yu yëkkatiku yi foofu la ñuy eh, tawaafee mbooleem mbir yi nga xam ne ala kulli xaalin yu sell yi foofu lañ nekk mbooleem eh, li nit ñi di wut Ah, ci àdduna ak ci àllaaxira ala kulli xaalim foofu la nekk léegi nag yow mi nga xam ne da ngaa jaayante ak Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane doon Tijaan na nga def li nga xam ne loolu mooy li lay boole ci biir eh, eh, li nga woote mooy ginnaaw bi nga waxee ni Tijaan nga ah, defal li Tijaan di def bañ la mën a xam xàmmee ci biir Tijaan yi ala kulli xaalim eh, na ko animé nag mbëggeelu Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane waaw mbëggeel ji moom du ma wax na mujj waaye man damay wax ne na jiitu. waaw man damay wax ne mbëggeel ji moom na jiitu waaw ginnaaw bi nga ko bëggee nag ba mu nekk lu déggu ala kulli ndax bëgg ak dëggu rek la nit kii di rawee rawatina nag eh, ci tarixa bi képp ku la gën a bëgg Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane gën la dëggu ci mbëggeel jooju noonu ala moom moo la raw loolu maa ngi koy dénk sama bopp waaye di ko dénk mbokk taalibe yëpp nañ ci bàyyi xel léegi nag bu fekkee ne nit ki eh, du tijaan te mu nekk jullit bu fekkee am na sens dëgg dina nangul Mawlana Cheikh de Tidiane même bu fekkee ne jëlul tarixam bi dina bëgg Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane même bu fekkee ne jëlul tarixam bi waaw loolu mbir la mi nga xam ne ñu ngi koy laaye biir képp kuy mbindeef du ma ne rek jullit yi waaye képp kuy mbindeef daal ñu ngi koy laaye biir na bëgg Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu ndax booleem xeetu euh, li tax nit ki di taxe ah mu ngi foofu noonu kon yàlla ñu yàlla defal mbëggeel jooju noonu mu nekk li nga xam ne du dëggu ala kulli ku nekk bu ñu gisee Euh, mu am mbëggeel boobu noonu ci Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu tey ñu ngi ñëw ci lenn ci ay ngineelu salaatul faati comme niñ ko tàmbalee woon keroog moom la ñuy continuer tey incha allah Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu mu ne laaj naa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lenn ci ay ngineelu salaatul faati mu ne yonent bi tontu ma nee ma benn salaatul faati mu ngi weccoog juróom benn téeméeri junni yoon. ci beneen salaatu bu bokkut ak moom mooy bu fekkee ne nit ki euh, mu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi ci ay salaatu yu bokkut euh, ak salaatul faati yow mi jàng benn salaatul faati moom pour mu am sa cër euh, mooy pour mu am daraja benn salaatul faati ci salaatu yu muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi fokk mu nekk lim bi war a tolloo juróom benn téeméeri junni yoon kon ala kulli xaalin nga jànge si ne dooleeg salaatul faati ci kaw yeneen salaatu yi ala xaalin loolu lu bari la lu kawe la ci noonu Mawlana Chameti Tijaani radiallahu anhu mu ne yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne képp ku julli ci yow benn yoon yàlla dina sàkk ci gémminam mooy ci julli boobu noonu benn picc picc boobu noonu dina am juróom-ñaar fukki junni laaf ba ni xadis bi jeexee dinañ si ñëw léegi incha allah loolu li la ci laaj mooy ndax bu fekkee salaatul faati la jullee ci yow ndax benn picc rek lañ fay eh, amal walla eh, lim bu war a tolloo ne juróom eh, benn téeméeri junni picc lañ fay amal waaw ndax bu fekkee ne julli bu nekk rek ci yonent bi ah alaa kulli xaalin dinañ fa amal benn picc nga gis ne bu fekkee ci salaatul faati mu ngi leen di ëpp ah ci ay ngëneel ci ay doole li war a toll ak juróom benn téeméeri junni yoon kon dangay gis ne ah, juróom benn téeméeri junni yoon yi da ko war a multiplier par benn picc boobu noonu mu jox la juróom téeméeri junni picc loolu lay bëgg laaj foofu ci ci ci ci ci ci laaj bi waaw bi mu ko waxee yonent Yàlla Muhammad salaay salaam ne ko bu fekkee ci salaatul faati ah, nga jullee ci man du benn picc de waaye juróom benn téeméeri junni picc ah, la yàlla di sàkk foofu noonu comme ni nga ko waxee kon nga gis ne bu fekkee ci beneen salaatu nga jullee ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam foofu moom benn picc rek lañ fay sàkk picc boobu noonu dina am juróom téeméeri junni laaf hmm? laaf bu nekk nag dina am juróom-ñaar fukki junni dunk dunk bu nekk dina am juróom-ñaar fukki junni kanam kanam bu nekk dina am juróom-ñaar fukki junni gémmin gémmin gu nekk dina am juróom-ñaar fukki junni làmmin làmmin bu nekk dina jaamu yàlla ah, dina sant yàlla dina gërëm yàlla ah, ci ay làkk yi war a toll ne juróom-ñaar fukki junni yoon hmm? muy juróom-ñaar fukki junni làkk yu bokkut mu ne léegi nag boo dajalee eh, dunk yooyu noonu hmm? nga dajalee laaf yooyu noonu nga dajalee kanam yooyu noonu nga dajalee gémmin yooyu noonu nga dajale lammin yooyu noonu nga dajale lakk yooyu noonu ak jaamu yàlla yi ñu jaamu yàlla ak ngërmaande bi ci nekk yëpp yow mi jàng benn salaatu ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam yow yaa moom ah, yiw boobu noonu waaw léegi nag bu fekkee ci salaatul faati nag dangay gis ne da nga koy multiplier par six cent mille fois da koy multiplier par juróom benn téeméeri junni yoon bu fekkee benn salaatul faati rek ngi jàng waaw ndax boo demee ci eh, dalaayil xayraat bu imam Jazuli wax jii ni din nga ko fekk wax na ne ci xadis mu ne eh, yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wax na ne fépp fi nga xam ne eh, jaam bi mu ngi fa mooy képp ki nga xam ne daal la kulli xaalin julli na ci man mu ne julli boobu noonu eh, dina wër wër ci ci ci suuf yëpp ah julli boobu noonu dina wër ci mbooleem géej yi mu ne julli boobu noonu dina wër penku dina wër xarf ala kulli di wax ne xam leen ne euh, diw di doomu diw julli na ci man ah, mooy julli na ci yonenteel Muhammad sallallahu alayhi man maay julli boobu noonu diw di doomu diw julli na ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ki gën ci mbindee fii te man mii man maay julli boobu noonu mu ne ci noonu nag nga gis ne mbooleem mbindeef yi dinañu julli ci jëmm jooju noonu te loolu mooy ngir mànd yàlla dégg waaw ci noonu nag nga gis ne yàlla Euh, sàkk foofu noonu ci julli boobu benn picc picc boobu noonu mooy comme ni ma la ko expliqué nii léegi dina am juróom-ñaar fukki junni euh, euh, laaf laaf bu nekk dina am juróom fukki junni dunk dunk bu nekk dina am juróom fukki junni kanam kanam bu nekk dina am juróom fukki junni gémmin gémmin gu nekk dina am juróom fukki junni lammin lammin bu nekk dina jaamu yàlla dina sant yàlla dina gërëm yàlla ci ay laq yi war a tolloo ni juróom ñaar fukki junni yoon mbooleem ngëneel yooyu noonu yow mi julli ci yonent bi sallallahu alayhi benn salaatu yow yaa moom ngëneel yooyu noonu ngërmaande jooju noonu yow yaa ko moom mais nag bu fekkee ci salaatul yi nga jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn per boobu rek da jël mbooleem yiw yi yëpp nga multiplier ko par juróom benn téeméeri junni yoon ala kulli haal nga gis ne julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu kawe la moo taxoon Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu di wax ne nañu gën a góorgóorlu ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi rawatina ci buntu salaatul faati waaw dem na ba wax ne euh, képp ki nga xam ne yaa ngi bëgg ngëneel yaa ngi bëgg ngërmande ak yàlla àdduna ak alaaxira ah, nanga sax ci li ma lay wax ni mooy lu mu néew néew na nga jàng ci bis bi fukki junni salaatul faati waaw lu mu néew néew nanga jàng fukki junni salaatul faati boo mënee def lu ëpp loolu nag baax na mu ne tamit nanga xool euh, ci bis bi ñetti jamono yi nga xam ne ala kulli xaalin euh, di nga koo ko taxawee mooy suba ak ngoon ak xaaju guddi waaw léegi nag fukki junni yi bu la neexee nga nga jàng ko si ñetti xaaj yi bu la neexee tamit jamono ju nekk bu fekkee mën nga ko nga nga jàngee ko noonu mooy nga jàng ko suba ak ngoon ak xaaju guddi wala bu fekkee loolu mënoo ko ala kulli xaalin euh, boo dajalee li nga jàng ci bés bi moom euh, na na mat fukki junni. waaw mu ne loolu yëpp nag bu fekkee mënut nekk mu ne suba si lu mu néew néew na nga def juróomi téeméer ngoon si lu mu néew néew nga def juróomi téeméer xaaju guddi lu mu néew néew nga def juróomi téeméer wax na ci lu bëree bare bëri ci buntu boobu ñu fa duggee mën na am ñu ñu ñu gën a kii waaye alaa kulli xaalin liñ fay wax rek mooy eh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam rawatina ci salaatul faati mbir la mi nga xam ne kenn ku nekk rek war na ci bàyyi xel mbooleem dog yi ñuy dégg baax na mbooleem tur yi ñuy dégg baax na waaw ay secret la ci tarixa bi ah, képp ku ci am ndigal mun nga ko def waaye nag bu mu tax mukk nga fàtte eh, salaatul faati bu mu tax mukk nga nga nga sàggane salaatul faati loolu nañ ci nañ ci bàyyi xel boo xoolee suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu dañut mukk di ñu ñaax nañu nañu gën a góorgóorlu ci salaatul faati waaw bu ñu yittewoo mukk eh, diw nee na diw nee na diw nee waaye nañu eh, yittewoo salaatul faati mi nga xam ne dina tijji suñu xol yi waaw loolu Euh, ay ndenkaane yi nga xam ne kenn ku nekk rek war na ci bàyyi xel mu ne lu mu néew néew na nga jàng ci ci ci ci bés bi li war a tolloog fukki junni ak ñaar euh, ci salaatul faati kon nga gis ne ba léegi ñëwaat na euh, ci ay ndigal yi nga xam ne Mawlana Cheikh Ahmed jox na ko ndax Seydi Tidiane wax na ne boo mënee def lu ëpp fukki junni moo gën waaw kon ala kulli xaal mbir la mi nga xam ne ñu ngi ko koy denk suñu bopp waaye di ko denk mbokk taalibe yëpp yàlla ñu yàlla defal jàmm ci barke Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane yi radiallahu anhu kon ñu tënk fii ba suba incha allah ñu continuer ci ngëneelu salaatul fatih mm, yàlla ñu yàlla defal jàmm xaq qadrihi wa miqdaari lazim كل حق سيادة مطلع أبد الشيخ تجارة لأهلنا الإمام خالف قبال دون شك وليس فيه مراء دائرة الفضل كن فرنمي ورغي سنت يا الله ñun lay digil gëstu loo doon si di baram